spectacle bi waa Kër Massar daal di maye kii di Ousmane Sonko ci guddi gi nag nekk spectacle bu rafet ndax ñi di waa Kër Massar bi guddi jotee ñoom kenn ku ne da ngaa génne sa téléphone ba nga yor tors bu ca nekk nga daal di koy taal mu nekk nag benn spectacle boo xam ne bii kenn mësu ko gis ñu di ko defal benn politicien kaw état yi foo seen yaa ngi gis làmp yi di tàkk suuf gi. mel ni bëccëg googu te lépp ay lampe téléphone rek moom moo ko def